asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokk yi am nañu mbégte ak contentement tey fas yéene ànd ak yéen seen émission Kouthia Show ñoo li gën a fës ci xibaar yi ak équipe bu Kouthia Show. ñu seeti ki nga xam ne mooy président Macky sàll nee na réew maa ngi waaxu te waaxu bi ci daw lay mujjee bu réew mi dawee nag après réew mi day naaw. Madické Niang tontu na ko ne ko réew mi bu fekkee ne day waaxu jëm ci naaw kon da ngaa demul ci biir dëkk bi xool. ndax réew maa ngay raam réew maa ngay sooxe te naawagul te waaxagul ma di ci ay kàddu yu leer TFM am ndam Youssou Ndour am ndam Kouthia Show am ndam télévision bi gën a mag ci États-Unis di CNN moo def benn reportage bu am solo daal di koy génn seen journal télévisé américain yi daa dee nangu ne am na koo xam ne comédien la ci Afrique rawatina ci Sénégal def na liggéey bu rëy ci li nga xam ne moo diggante Donald Trump ak Hillary Clinton mbokk yi loolu la ñuy daal di koy tëjee seen émission Kouthia Show bu ñu demee ba ci biir dara du leen ëmb kon bu ñu gërëm di sant ki nga xam ne mooy Papa Samba Thiam ak tonton Mar yaawoo gervé benn caméraman ak ñaari caméra benn jëmm gërëm nañ ki nga xam ne mooy ingénieur donc di sant bu baax ki nga xam ne moo taal lumière ba muy tàkk di DJ Leuz mbokk yi ñuy gërëm képp koo xam ne yaa ngi fii ci décor jaarale ko ci turu ki nga xam ne mooy Lamine Bayo ak ki nga xam ne mooy Mansour vidéo yi ki ko yor mooy Babacar bu ñu amee mbégte ak contentement di gërëm ki nga xam ne mooy yor suñu sécurité di Kara ñuy gërëm Père Assane Ndom bi nga xam ne mooy yor sécurité central ak visite de proximité explication média Père Assane ñuy am mbégte contentement di gërëm ñoom jëm bi nga xam ne ñoom ñooy branché courant bi ba mu ñëw suñu xarit suñu mag suñu grand frère suñu lépp muy suñu tonton tonton Pierre ci entretien mbokk yi gërëm nañu sant nañu képp koo xam ne yaa ngi liggéey jëmale ko ci équipe bu Kouthia ñuy wax nag di gërëm bu baax ki nga xam ne mooy coordonnateur entre Kouthia Show ak régie bi di Fatima ñuy nuyu ki nga xam ne mooy Horatio chef de desk ambiance ora jigéen ñi kana kana fa nekk fas yéene dalal nag tey benn gan boo xam ne gan ba ca boppam moom moo inspiré Kouthia ak Horatio ba ñu génnee moo sa rab bi muy suñu papa di suñu nijaay jógee bu dëkk bu sori ñëw tey pour xool si liggéey bi nga xam ne moom la def dana ñëw indi témoignage am buñ ci eggee dinañ leen bàyyi góor gi mu daal di taxaw ci plateau bi wax li nga xam ne moo ko taxoon a jóg ba mu jaar ci Tunkara ba loolu nga xam ne moom la waxoon mu jël doon ab morceau musique danañ koy dalal ci biir émission Kouthia. mbokk yi su ma gëstoo xam la laay gis. Kouthia dikkal dikkal yow kaay. yow kaay yow dikkal dikkal yow kaay eh yow kaay yow dikkal dikkal. Kouthia kaay la. Madaar. saabu liquide bu far xeeñ lu neex ànd ak limon di setal kër ah. setal waañ setal ah. oto setal karo dëgg la ah, dëgg la setal na ko li ngay def laay def waaye man ci microbe laa gën a aay damay faj. waaw góom bu bees tàq. ak lan boo ko ci toppalee tuuti ndox. Ah. mu daal di koy tëj. te du la indi benn gàllankoor. Ah. xet gu neex buy ah. jëm ci duus. bii moo ci aay. soo amul njëgu bii. am na détail bi. wax nga dëgg waaye est-ce que xam nga ne Noura. moom Madaar bii ñoo bokk ndey ak baay. waaye Noura da ko gën a sob maanaam dafay bàyyi xet gu neex. di setal lépp lu oos. te dëgër bopp. moom moo ko ci gaaw. xoolal lii boo amul njëgu bii. waaw amoo njëgu bii. waaw omo bii moo lay war. li ne ci bii. waaw moo nekk fii. ñu def ko def ko pëndëx. <laughs> léegi nag soo sooy reetaan mu neex. Ah. sa bañ weex. waaw carie dentaire yi. ak ñam yi ci fanaan. Ah. da koy dindi ba pare bàyyi ci xet gu neex. déedéet. kii nag mag mag ñi ñoo ko xam ah. jamonoy sengoor ba tey tàngal mant mos dolli la mu doon saf ah. lay saf la mu doon jar ah. lay jar na mu meloon la mel ba tey fañ ko doon defaree ñoo koy defar ba tey ku ko weddi nag ci kanam tuuti ma ñamal leen ci ngeen xam lu muy njar bii nag moom dafa ñëw ne man xeesal taxu maa jóg soo ñuulee mu gën laa leeral soo xeesee mu gën laa leeral waaye am na koko am grenade am li nga xam ne nag moom mooy aloe vera waaye nag li ci gën a yéeme mooy benn bu nekk nag dafay ànd ak crème moom déedéet soo ko defee nag résultat bi mu lay jox mooy parfait ah, laaj la ma su ma ko fa laa jëm ca téléphone yi nga xam ne mooy fantôme 6 mais liggéey bi moo yomb kii bi la ko joxee war a tardé lii rek fantôme 6 <laughs> mooy liggéey bi nga xam ne ah. téléphone bu la jaaxal ci àdduna boo ñëwee ba jënd ko bàyyi téléphone yëpp sa loxo koy ibbi nel benn sa ko koy ibbi buñ ko sàccee am na code boo xam ne bu ñu la ko joxee fu ko waa ji taalee yow lay jot bii nag day jël kaaminu alxuraan maanaam kaamin ci boppam boo ko jàngee ba mu jeex mun nga ko fee enregistré te dara du ci jógee deuxièmement ñaari photo ci am ci kanam ak ci ginnaaw bu la nit ki soree lool ah. mun nga koo xëcc ba mu ñëw nga ne ko tapit photo xam nga ne loolu loolu loolu jar naa wari léegi nag xam nga fa laa jëm ñi nga xam ne moom xam naa ne président Macky Sall war na leen jàppale xam nga lu tax parce que dañoo ñëw ne dañuy xeex chômage loo am ci lu tuuti soo leen joxee ñu jox la machine loo tuuti tuuti boo leen ko joxee ñu jox la machine am na piqueuse am 20 U am gros solnière am li nga xam ne mooy surfeuse waa léegi yow mi nga xam ne da nga jàng sa métier ba pare te amoo moyen pour jënd machine loo am jox leen ko ñu jox la machine ba pare nag na la loo ñaw boo amee tout bénéfice jox ma bu motee yaa moom waaye wax dëgg yàlla ñi jar ñoo jàppale de ñii nag ñooy waa kër aram jàppale ñoom nag ñoo tax chômage bu bëri wàññeeku ci dëkk bi kon Macky sàll war naa dem seeti ñii suqali leen ndax ku lay labal ci métier bi nga jàng te te te amoo moyen tax nga def ko ah. ñii ñoo jara dimbali ndax wax dëgg yàlla ñii dañuy xeex chômage jàngi ñaw mhm. uti métier am na ku leen lebal ci njëg bu tuuti mhm. nga daa day mokkal benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yeeg ñu seetaan dal leen jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi li ciy gën a fës ñu dégtal leen élément bu am solo Samba Sine alias Kouthia jamono ji gisoon ngeen uh, ni mu doon toppandoo Hillary Clinton Donald Trump loolu nag jur na uh, liggéey bu am solo ndax fële ca réewum États-Unis ay uh, tasukatu xibaar def nañ ci ab élément élément boobee lañ leen di tàggoo jaajëfal waaye itam delloo njukkal Samba Sine alias Kouthia jaa ngeen jëf ñeen du jàmm If you've had the chance to visit Harlem in the past decade, you may have noticed that a lot of West Africans now live in the neighborhood, especially Senegalese. The several blocks around 116th Street, in fact, are called Little Senegal. That's one reason why the U.S. election is being followed very closely back in Senegal, and there's a lot of concern there about all the anti immigrant talk from Donald Trump. But at least some Senegalese are having a good laugh about it, too. Good morning! Hi. Hi. My name is Donald Trump. Yeah. Yes. Future President of America. That's Kuchia, a comedian in Dakar. He goes by just one name, but ask most Senegalese, and they'll know exactly who he is. In fact, his popular TV show is simply called Kuchia Show. إن الضريح لروض القطب ذات أبو الفيض الإلهي أبو العباس أبو العباس alamin sant yàlla delluwaat di sant yàlla suñu borom di ko gërëm di wax fu ñu toll alhamdulilahi ndax liggéey bañ koy tàmbalee dañ ko tàmbalee ci fulla ak fayda coono du réer borom moo tax bu ñu demee ba américain yi daa dee def reportage bu am solo jëmale ko ci liggéey bi nga xam ne moom la Kouthia di def ak équipe am dañuy def lu dul sant yàlla sant yàlla boobu nag ñu koy jëmale ci euh, suñuy ay waajur ba pare bu ñu jógee suñu waajur sante ko kilifa diine yi nga xam ne dañuy bàyyi xel si émission bi nga xam ne moom lañuy bi nga xam ne moom ci delloo gëm nañ ne ñaani doon ñaan yëpp am na ndax lu di bu ndaw te lii xam ne moom la ñu am di ndam liggéey la boo xam ne borom kër gi ci boppam Youssou Ndour moo amoon xel bi moo taxit dañ koy gërëm di ko sant képp ku ko sofantal moom nga sofantal liggéeyam waaye ñun def nañ ci li nga xam ne moom lañ ci war a def ab télé am ndam yaakaar naa ne télévision bi kenn ku nekk war ngaa mën a fësal li nga xam ne nag moom mooy ndam loolu ndax lu toll ne CNN di télévision boo xam ne Ah, Obama fa lay waxee Hillary Clinton fa lay waxee Donald Trump fa lay waxee bu ñu demee boo yëkkati fa nag turu télévision Futur Média mu jëm ci ndam boo xam ne ku Kouthia Show moo ko am ak képp koo xam ne da nga fay liggéey donc nag li ma gisoon daal li gën a war mooy ñu gën koo fësal ci télévision bi ba ñëpp mun koo xam ndax li nag xibaar la boo xam ne du xibaar bu tuuti ñu ne ñu ko ndax borom kër gi ci boppam moo amoon idée bi nga xam ne mooy idée élection yi te lam xalaatoon yàlla def na ko muy ndam boo xam ne ca kanam ko gën a yaatal moo tax ñuy dellu jërëjëf dellu di gërëm ki nga xam ne nag moom mooy Adia Talla Adia dañ koy gërëm di gërëm tamit ki nga xam ne nag euh, mooy suñu jigéen bi nga xam ne euh, moom mooy euh, moom mooy ah Fatou Dieng ñu ngi koy gërëm waaye Fatou Dieng am na patron am na patron ah Assoumben Assoumben ñu ngi koy gërëm ci liggéey bi nga xam ne moom lañu def ndax information bi dafa daanu rek ñu daal di koy traité directement yaakaar naa ne nag loolu ndam la ñu ci sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñooñu ñaanal moo tax kilifa diine yi dañ leen sant di leen gërëm di ko tàmbalee di suñu baay sëñ Sidi Maktar Mbacke yal na ko yàlla defal fan bu gudd ak wér yaram sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum général kulu Tidiane ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram waaye di si jël suñu bàyyi Thierno Bachir Tall chef religieux dëkk ca waaye di am mbégte ci Thierno Nourou Tall ca Sacré Cœur ak alaaji Cerno Abdourahmane Bari ñu ngi koy nuyu ca Bogol alaaji Cerno Hamdou Aw ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram alaaji Ousmane Ndiaye Waliou Kamin ak soxnam Adja Mame Bousso Cissé suñu bàyyi alaaji Basirou Bara Mbacké nekk ca HLM Guédiawaye sëriñu Go Fall ak Fa Abdou Gueye sëñ Abo Mbacké ibnu sëñ Fallou Mbacké di xalif sëñ Fallou ci kaw suuf ak raqaji sëñ Abdou Karim Mbacké ñu ngi leen di ñaana fan bu gudd ak wér-gu-yaram di sant Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xam ne yàgg nañoo seedal liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñuy def ba bés bu ne mu koy bantuwaat ci li nga xam ne moom mooy xarañ bi ñuy def la mu wax nag tey yàlla indi na dëgg leeral na ko ndax bu ñu ba américains yi daa def reportage bu mag daa xarañ liggéey bi nga xam ne moom la El Hadj Abou Bilal ak Kouthia Show di ko def ci le Futurs Médias bañ ci reportage moom lii la gisoon moo tax ñu koy lépp loo xam ne da ciy ci alhamdulillahi rabbil alamin wala rëm imam Tamsir Sakho ziar nañ ko waaye suñu bàyyi bopp Serigne Babacar Abdoul Aziz Sy yal na yàlla guddal fanam di nuyu tamit Serigne Maodo Sy bu maam Abdoul Aziz Sy rabbil taala anhu ñu koy nuyu bu baax alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy du gëj jour mu ngi am ndam Serigne Mamba Sugu ñaan Télé Futurs di am ndam ci lu baax ci li nga xam ne moom la ñu wone ci côté diine nee na sant ci loolu gërëm na ci waaye Abdou Adé Sarr bi nga xam ne moo jiite jàngu ne moom la jox lengey di Monseigneur Benjamin Ndiaye bi nga xam ne ñoom ñu ngi ñu ci yoonu Yeesu Christa lépp luñ ci ñaan ci yoon boobu nga xam ne diine chrétienne yàlla la ko yàlla defal ndax yaakaar na Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaye nag ñuy nuyu suñu bàyyi bopp di Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Budi di yeewoo ca Tiwaawan ak suñu yaay Adja Kiné Sy bu Serigne Cheikh Ahmed Al Maktoum mboolem na leen yi Faye ak Léona seen ñii ñëpp nag ñoom ñooy suñu gendarme ci réew mi bu ñu ne gendarme nag wax nañ sécurité bu ñu sécurité nag ñoom la ñu mën a wax ne ñoom ñoo yor suñu sécurité ci dëkk bi ndax kilifa diina yi benn waxtu du leen raw ñu ngay wér di jëmale ci suñu borom ñu ngi ñuy aar ñuy tëdd ba nelaw ñoom ñuy wér di di wéetal suñu borom pour jàmm am ci réew mi lu munti xew rek xam ne ne ñu ngi dund jàmm ndax ñoom ñu ngi dund ak ñoom chance la nga dund ak ay kilifa diina yoo xam ne ah wax dëgg yàlla boo bokk ak jamono sëñ Saaliw boo bokk ak jamono sëñ Cheikh Ahmed Tidiane bokk jamono sëñ Sidi Maktar Mbàkke ak xalifa yi fi nekk yëpp sant yàlla la moo tax ñuy sant di wax alhamdulillahi rabbil alamin yi nag ñu ngi ànd ak ànd ak tàngal mant mos dolli ak lii nga xam ne nag moom la xale yi jigéen taamu di soft sing ak li nga xam ne mooy nuraa ak mera ñii daal ñoom ñoo ñuy gunge kër aram jàppale ak Phantom sis Macky Sall nag yaram ba dafa tàng ca Malicounda ba yaram ba tàngee am na ay kàddu yu mu yëkkati ñu dem seeti ki nga xam ne mooy buur Gédé Macky Sall ma ngay wax ak opposition bi di leen xam ne liñ koy xarab yëpp moom gisu ko li mu gis mooy li nekk ci kanam ñu seeti président Macky Sall mbiyee Sall soo àllee jaboon Sall ari dama ne jërëjëf yéen waa Malicounda ndax sama liggéey yéen a ngi koy rafetlu te kontaan naa ci li nga xam ne mooy doomu Malicounda yi saa ma yàlla may occasion damay wax ak ñi nga xam ne mooy sama askan une fois encore réew mi bëri na ay coow nit ñaa ngi coow gauche ñu ngi coow droite te loolu gisuma ci lam solo mais bu fekkee ne def naa lu baax nañ ko marche. le président de la république Macky Sall def na lu baax def na ay jéego yu baax dañ koy marshal pour sargal ko ci li nga xam ne moom lañu bëgg mais man mandat bi ma nekk nii nekkuma ko pour sama bopp ak suma parti dama koy def parce que yàgg-yàgg dama fiy jógee kenan mooy toog li ma eggalee li nga xam ne moom mooy ay projet Ablaye Wade mais projet Ablaye Wade yi ma eggalee bu leen fàtte ne ma ak Ablaye Wade fi nekkoon am na loo xam ne maa ko defoon ci xelam ay autoroute a péage ak yu bëri yoo xam ne doo leen ko mën a xam parce que ku nekk premier ministre président ma koy Abdoulaye Wade c'est parce que am nga ay xalaat yoo xam ne joxoon nga ko te xalaat yooyu ba ma koy jox ak ba mu koy def xëy na nekkatuma woon ci partem waaye loolu sama xel la woon moo tax tey loolu sama ko amaloon xam nga am na loo xam ne lu nekk doo ko mën a wax waaye am na ci ay projet yu bari gars yi bu ñu toggee ci télé bi naan Sall day eggal yi war day tudd doomu jàmbur waaye nag nañu xalaat ne man mos naa nekk premier ministre te la ma daan wax ak président Ablaye Wade li ci bëri tey dama ko eggali parce que man maa ko sumboon ci ay kaddu moomu daal di koy jëf ci ay action moo tax su ma dëggee gars yi naan réew mi doxul dañuy wax lu neex mais Sénégal maa ngi ko fekk muy raam te Sénégal ci tànk yi mu nekk nii ñu ngi waaxu te bu ñu waaxoo ba pare xam nga ku waaxu da ngay daw te boo dawee boo bëggee raw def lu gën a raw daw da ngay naaw moo tax damay kontaan damay bég suma ma gisee population boo xam ne dañoo ànd ak man ci li nga xam ne mooy projet yi est-ce que mus ngeen gis dëkk boo xam ne dafa am toolu courant amul toolu courant maa ko fi def parce que boo demee ba waaloo lu mot ay téeméeri hectare laa jël def ko énergie solaire baykat bi dootul amati facture ndax ci li nga xam ne moom mooy jaww ji te yàlla ko moom yàlla suñu borom moom li nga xam ne mooy jaww ji ñu daal di jël ci jaww ji daal di koy ŋàcc def ko ay énergie solaire baykat bi dootul amati facture courant day xëcc li nga xam ne mooy jaww ji di ci pompe ndox muy génn muy arrosé te du fay dara dama ne ku ne Sénégal dafay raam yaa ngi wax loo ndax bi ma yoroon réew mi dama ko fekkoon muy raam ma daal koy tëtee mu jóg taxaw ndax xale buy raam danga koy jàngal nu muy doxee sama première at dama jàngal Sénégal nu muy doxee deuxième at bi moon ko nu ñuy waaxoo troisième at bi moon ko nu ñuy gaawantoo maa ngi nekk ci quatrième at bi dama koy wane ñu muy naawee gis nga gars yi san lame nañ yor di wax waaye jëf bu amee ñu wane ku nekk li nga jëf di nga xam ne na liggéey naa war a liggéeyuma dama ne ma bantuwaat ko ngeen dégg ko dama ne Sénégal ku ne dëkk la boo xam ne da ngay raam yaa ngi wax loolu neex actuellement dëkk baa ngi waaxu te bu jógee ci waaxu dafay accéléré te bu jógee ci accéléré dafay naaw waaw

now. Wrong. Now. du ma xam ne man ngay waxal man MC Galaxy nañ may woowee. tuub ko ba tudd na sa bay galay nga doon may galaxy. waaye Paa kaay déglu sound yi nga xam ne moom laay dóor ci kaw town bi. am ah, noonu nga wax ma si sa xalaat Paa. Ah? bàyyi tur boobu waaye. Galaxy. ah bon. yee yee ni gëmal la MC Boy Town. géejawaay ba ñaari tali gel bu mol ma raam. wàcce samay casquette. déglu sama sound. sol ci samay basket. teg ci sama down. yow sama doom. kay fii ma wax la àdduna ñaari yoon la benn bi baax beneen bi nax la ma won la yoon bu baax nga jël ci jaare noonu pour nga nekk nit ku baax ci biile jaamonoo eh may ba da nga dox sa jaamonoo am nañu mbégte ak contentement bu mag euh, di nuyu bu baax euh, euh, ñi nga xam ne nag moom mooy suñu yaay di Ousmane ba Diallo bu ñu ngi koy nuyu dëkk ca Grand Yoff maamu Aïcha Cissé bu Mora Cissé ñu ngi koy nuyu bu baax mama Ousmane ba Diallo Euh, sopp émission Kouthia Show dëkk nag ca Grand Yoff kooku nag euh, moom mooy maamu Aïcha Cissé euh, bu Mora Cissé ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal fan bu gudd ak waaye tamit di nuyu Fatou Anne premier adjoint maire bu Demet ak maire Abdoulaye Ilimane Dia ñu ngi koy nuyu ca Demet département bu Demet foofu ca Podor di nuyu tamit Daba Cissé Soda Diaw Miss Miss Ngone Diaw sans oublier Madame Ka Ndeye Khady Diaw et son mari le bébés Rose et Adja ñoom ñëpp ña nga ca Parcelles Assainies ñu ngi leen di gërëm di sant Pa euh, Alaaji Seydou Ba depuis Guy Fatma Guy euh, may ga taalibe Thierno Abdourahmane Bari ca Bogol ñu ngi koy nuyu waaye tamit euh, di gërëm bu baax euh, delluwaat di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel ci émission Kouthia Show rawatina nag euh, suñu papa yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk fële ci Fouta di Thierno Mamadou Adama gay xalif bu Thierno Adama gay nekk ca ñànk Edi ñu ngi koy ziar di ko ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram di nuyu tamit bay Cheikh Mamour Insa Diop chef religieux à Dakar sant nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax di ko gërëm ñoom Thierno Insa Alassane Euh, euh, Thierno Insa Alassane Insa ñu ngi koy nuyu ñoom Daba Bijou ñoom Yaxya bu Baay euh, Mamour Insa ñu ngi koy sant Adja Sagar Sall nekk ci HLM Euh, euh, euh, angle HLM Grand Yoff ñu ngi koy nuyu waaye tamit ajaratu soxna Khady Sall nekk ci angle Mousse ñu ngi koy nuyu ñoom Cheikh Cheikh Ababacar Diop ñoom ñëpp waa kër Baye Mamour instant Diop na leen gërëm nañ leen di leen sant Serigne Fallou Mbacke docteur ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal fan bu gudd ak Serigne Amsatou Mbacke doomu Serigne Soubérou Mbacke ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant tamit maam Thierno Mixdaat Mbacke Serigne Abba Abba bi nekk fii ci TFM man ñu ngi koy nuyu waaye di beral nuyoo waa kër Abdou Salam Ngom yi nga xam ne ñu nga fële ca Njaxat ca Bambey rawatina taaw ba di Serigne ngoom ñu ngi koy ziar Serigne Saliou Ngom Mame Thierno Ngom Sayer Ngom Fallou Ngom ña nga ca Njaxat Bambey ñu ngi leen di ñaanal fan bu gudd wér gu yaram ñoo nag waa Daaru Salaam nañu di gërëm bu baax euh, euh, képp koo xam ne yaa nga ca Saloum Alaaji Basirou Touré euh, nekk ca xalif Daaru Rilwan ñu ngi koy nuyu Alaaji Serigne Touré ak Serigne Basirou Ndaw xalif bu Daaru Salaam Alaaji Touré nekk ca Daaru Rilwan Modou Touré ca Daaru Rilwan Moustapha Touré ca Daaru Rilwan Alaaji Muntaha Touré Serigne Xayru Touré ca Medina Salaam ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar Serigne Ababacar Abdoul Aziz Si xaritu sëñ Mbaye Sy Mansour ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd Serigne Gora Seye président mouvement les serviteurs de l'islam yal na yàlla defal jàmm ñoom ñëpp fay leen fan bu gudd ak wér gu yaram mbokk yi nag di leen sant bu baax a baax a baax képp koo xam ne wax dëgg yàlla yaa ngi bàyyi xel ci émission Kouthia Show bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm amuñu nag àpp léegi nag mbokk yi dañuy dem seeti góor gi nga xam ne mooy góor gi Tafsir Moustapha Gassama Moussa Gassama dëkk ca dëkk bu ñu naan Kër Madaawur ca Thiès région de Thiès góor gi nag dañ ko invité woon ci émission bi nga xam ne moom mooy Sénégal jëm kanam ca Tunkara mu daal fay wax wax bu am solo li nga xam ne moom mooy euh, euh, rab bi xale yi di rab moom nag ci boppam dañ ko éviter waat ndax xam ngeen ne am heure boobu di émission ba muy jàll te 2S bokk la ñi nga xam ne tamit dañuy seetaan fii ci TFM xëy na découvrir nañu paa bi waaye découvrir nañu Horatio ak ku Kouthia ci inspiration maanaam ci euh, li paa bi góor gi wax keroog ca télévision ba ñun ca ñu jàngat ba daal di cay génne son moom nag tey ñu dalal ko moom góor gi mu fas yéene ñëw waxtaan ak ñun. lan moo taxoon ak yan tànk moo ko yóbboon foofu ba muy indi message bu am solo koo xam ne daf ko def ci li nga xam ne moom mooy musique rap góor gi Tafsir Moustapha euh, Moussa Gassama ma Madaaw ca Thiès may leen ko lox mu daal di ñëw si góor gi ci plateau bi Horatio waaw ñu dalal ko ñu dalal ko jërëjëf jëf góor gi Gassama Gassama ñëwal nii ñëwal nii voilà góor gi ñu ngi lay sant euh, di la gërëm di am ca lool di la dalal ci plateau bi nga xam ne euh, mooy émission Kouthia ba nga jaaree ci émission Sénégal jëm kanam. ci Tunkara nga xam ne ku fa dem rek lii jëmale Sénégal kanam moo la fa tax jóg te ci sa waxtaan dégg nañ ci euh, li nga xam ne moom nga wanaat xale yi yoon bi ñu war a jaar ba musique bi ñuy wax ñu daal di ci mën a am luñ ci jël di jëriñ loolu nag ba ñu ko seetaanee maak euh, Horatio mm. ñu ne góor gi day wax na wax ju am solo loo xam ne wax dëgg yàlla. war nañ koo wane ba àddina mën na roy ci li mu wax ndax li mu wax boo ko xoolee euh, amul dara loo ci laam-laamee loo xam ne da naan góor gi waloon jaar nii yoon bi nga jaar loo xale yi ci la nga am ci xam-xam ku ci jaar gis résultat moo tax ñu lay wax dalal jàmm ci plateau El Hadj Abou Bilal di la wax nag Sénégal lañ lay seetaan euh, wax dëgg yàlla message boobu nga xam ne moom nga waxoon maanaam ci rab tey loo ñu koy mën a xamal public bi nga xam ne seetaan ñu koon fële ca 2 waaw xam nga ginnaaw bu ñu nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, Tounkara euh, xam sama benn xaritu naaru Bayrul bu ndekk mbakke moom boole woon ak moom damaa ñëw nii waxtaan ba ma indi tarif yi mooy am na sama benn waay boo xam ni su ma boole la ak moom daal di koy woo ci sens yi waaye tamit nag di ba ma boole mu taxul ma daal di ñëw ndax damay seetaan Tounkara te bëggumay jàkkaarloog àdduna di wax loo xam ni damay weddi sama bopp maanaam dama préparé sama bopp ba li may wax ma teg ko fu leer nga xam di ko mën a dindi ma ñëwee ne ma ne ko mu ni ma looy def ma ne ko bindkat laa damay bind mu ma ci looy bind ma ne ko ci lépp luy xew ci réew mi rek bind naa lu mu doon lu mu doon nag loolu bind naa bind naa ci loo xam ne lii dina tax xale yi am jom nangoo liggéey xale yu am ay jikko yu rafet na ko topp seen i wàllu diine ji itam lépp lépp politique bi bàyyiwuma dara bind naa ci lépp ma ne kon ci seen bii laay wax ak yow ni la dégg naa ngeen di wax ñafe mais ñafe du liggéey déedéet ñafe saaga la ñafe saaga bu du woon ma bu dul li woon li ma ko bëgg a leeral du ko wax sama gémmiñ nag même saaga sax bu ñu la ko defee ba demee bay lay foo nga waxaat ko waaw moo tax ma ne ko ñese la ñuy wax on dit ñese pas ñafe ñese waaw ñese wala wolof la boo dee xooli ñam bi bu naqaree dañ naan ñam bi dafa ñes booy bay tool bu dëgëree dañ tool bi dafa ñes bu ñu la rombee ngay bay fu dëgëree dañ naan góor yaay ñes foofu nga ni waa maa fi ñes mun la ñesal kon on dit ñese pas ñafe moo ko waxee loolu man man góor gi noonu danoo danoo dégg loolu ko lu mu ko ma dañ koo jàngul man ko lu mu ko teree jàng waa ji dañuy xutba mu jël surnaalam surnaalam di lii ñu ko yow ilimaan bi day xutba mu li ma wax dégguma ko waaw li ko donc loolu moo waral mu la dugal ci loolu bu ko defee nag keroog rek laa sama daal di daani man mii lu teem a jóg daal di feelu Cheikh Tidiane Gaye ci way fi tey ba mu kiilu ndax waxam ji yëngal na man sama yëg-yëg lu ma te jog te yóotu foo yéte ak dig sànni saa bàkki teen bi tàppi fi as ndox ndax ku naa noonu te man ndiwul ni gu ndox ndox ne ko ndax gisoo fii ku naan la moom ab sunil di ko dooloo keneen ni fii ab tëkkal la waaw daal di nag daal di nag gaañi lislaam pas-pas la buy ànd ak jëf ak i wax jojo bi mooy ka ko doon def ngir bëgganteek bokkoo ci yàlla te jàppoo dimbalanteeg muutoo ci sàpp te rabboo waaye noonu bii daa yëg ci ñun ak tasaaroo ak a ngaayoo ku nekk ci ñun mu ni xiiroo mu ni coppet ni ndong ci bii ni rajax bii ku ne naan tey ma jël bu kii def ci saa bii <laughs> <laughs> ma ne te jullit yi seen lim bi moo gën a tuuti li mu fee te duñ jullit gën a wute waaye donc ñoom saa bu ñu jógee bëgg noo xeex duñu gee sotti woote ger dañ ko naa ciix ni ko fii xër àndandoo la xasaayu boole seen doole jëm ci ñun xasaraayu loolu moo xew ci xeex ba fee ca Palestine ak ca Kashmir nag comme Pologne Séatine bu ñu demee fee ci penc ñu di àtte mu nga foofee droit de veto di botte ndax gisoo fii état gi nag ni mu làq Israël doomam jullit ji ni poqe te Europe daa mel ni far na ci yëf yi mu ngi nii tey taxaw di xoole gëtam yi lu ko tey ngang te wax ci tey ko amul doole mbaa alal di nga min boobu mooy taalib. boobu mooy eh, taalib li fi wax lépp dëgg la. eh may pa li fi wax lépp dëgg la. li fi wax lépp dëgg la. eh may pa li fi wax yëpp dëgg la. eh may pa li fi wax yëpp baatil la. eh may pa li nga wax yëpp baatil la. eh, eh may pa li nga wax yëpp dëgg la. eh may pa li nga wax yëpp baatil la. eh may pa li ñu jàngal baatil la. eh may pa li ñu wax yëpp dëgg la. eh Mayka li ñu jàngal baatil la eh Mayka li ñu wax yëpp dootul la. loolu moo tax nag loolu moo tax nag ma ni kon lislaam nekk di puusaan rek ak xambaan daa war a am otoom dawal daa war a daa war a taal di régal ñëpp waaye nekk fi rek di puusaan rek ku jóore nga puus ko bu départ nii démb rek laa puus benn borom oto war a oto ma ni ko damay dem mu ni ma oto bi daa a tàkk ma defee bu puusee damay yóbbaale ma puus rek mu départ ci bi ma ni wax ñu doon wax nga moo tax man nag lislaam xalal leen ko aw yoonam mu ñëw sëmbaxloo sampum ndëndëm bàkku bu ko kenn nag ni tey bokkuloo day ñël taasi rëgal bàyyi xambaan mi des di xaaraan day am otom dawal bay puusaan mi day sonnloo kon war na noo yeble feenee ñuy fasee ka feccee fan fa ñuy fasee ka feccee ci réew mooy fan ah mooy assemblée assemblée nationale assemblée nationale ba tamit kon war na noo yeble feenee ñuy fasee ka feccee kuy yëkkatil diine kaddu dëgg buñ wokkuloo du doon fan yi xese nan jël teg suñuy yoxo xaas ca kaw fan yi xesan moo gën wokkaloo di xuloo wokkal bu baax ndànk wokkal kaw wokkal ba ca suuf lii lépp lii ndeyam mooy wokkoo da ngaa wokkaloo. ah dafa doy fàttali ko wokkal bi dafa doy. jërëjëf jërëjëf. donc kon jërëjëf góor gi. ñu ngi ñu ngi leen di sant. ñu ngi sant ñun tamit. Euh, ni ngeen defee. ñun gisuñu ci dara dara lu ñu mën a wax. seen liggéey ngeen def. comédien moom la liggéeyam lay def. c'est-à-dire ñun ñi bu fekkoon noo def lu warul dama ne bu fekkoonte ne bi ma demee ci euh, tunkara damaa wax lu dul noonu ba tunkara daaneel ma bu ngeen defee seen kii bi foofu laa jaare dem Gambie dëkk <laughs> jërëjëf góor gi encore euh, en tout cas da ngeen xam ne yen ay éducateur ngeen ay yarkat ngeen ay jubati ngeen nit ñaa ngi leen di xool di leen tëb seen message moo gën a gaaw a jàll ci message yi ci des lépp lu ngeen yaakaar ni mën naa jariñ ci réew mi ci njàmbaar ci ngóor ci góorgóor ci liggéey ci juboo ci ànd ci fonk diine ni ngeen koy jàllale incha allah kenn du leen wax bàyyi leen seen liggéey ndax seen liggéey ngeen di def waaye lu ngeen mën a def ba mën a jubanti nit ñi ba ñu teg ci aw yoon moom dong moo mën a jëriñ réew jikko yi nag moom bu ngeen yeba wax ci yàqu na moom réew moom problème bi mu am bi si gën a rëy mooy problème mu jikko Cheikh Moustapha Bachir te foofu laa jeexale Cheikh Moustapha Bachir damaa déglu ci rajo mu ni dafa bëgg a def benn daara boo xam ni dañ ciy jàngal doom eh, turandooy soxna jaara ndax ñu am ciy jikkoy soxna jaara ci ëllëg sa laa jël xalima daal ni jaaraama maam jaara jaaraama Serigne Moustapha yow mi ubbi daara ngir jàngal ci ay turandoom ubbil te jàngale yar leen nit ñu namp ay leer ku jàng-jàngale moo am ndam ci kaw ku moom sa baay ba kam xam ba la ñu ràññee ci moom akub taar mu làqu bàyyi fi xam-xam bi mu doon li ngay moom jëlal tasaare ko ci doongaam mu doon li koy neex sagal ci maam jaara mii maamam ci ay turandoom bu doon ku ñuy tuddee nii ngay def de kon dana neex du xotti ay mbubb ak dàll yeneen yu dul yéen ñi di waajur yi am ngeen muur ba ngeen tuddee kii di soxna maam jaara kii raw tey jigéen judul moom dooleel du ab juddu su ko doonoon ku fekk say maam oh. ñu suufe doo kawe jikkooy raw te moo gënu ko nag jikko li koy maye jàng ak yar tamuy ba ngay tuut ku sàggane gone ba mu doon mag nga ñee jeneen doon jubbanti ci ngone moo doon gën mu màgg dim njool loo teg mu teggi ko ngay móoloo ko jéppi say doom yaroon ko ci ngone moo doon gën nga xëy di ko raay mu màgg jikko ja wuuteeg yow nga naa jile doom ku jàngale yare soo noppee ku gis ni waaw li manqué suñ dund bi du xam-xam tey du am koom yar bi bi ji jikko moo xëy dem waref na koo seet ba gis ko indi ko yët bàyyi ñu yar ci seen daan nag tubaab bi lor na la ilaha bi lor nanu daa ñëw fii fekkoon suñu maam ñu yar ci diine ji mu ne baaxul jox leen ma seen doom ñu sànku jox ko ko ba mu yar leen ba noppi ci ñoom ñu nampi cee jikko moo tax tey niroon na ak moom lañ wute mooy der bi lañ wute mooy der bi suñu làkkee nga wax ni ñoo ñoom noonaat la jikko yeeku ci bañ lii bu leen joxi doom jàngal ko toqi ko bu mu mel nag ni yow damaa waar bu toqi jàngale mooy doon yow yow it nga doon moom xale bu jigéen xale bu jigéen xale bu jigéen bu mel xale bu may jigéen bu mel ni ñii damaa daje ñoom ci CTO. mu ne ma docteur bi ne nga xaax ko xaax mu ne bi ne nga xaax ko. xaax xaax. docteur bi nee na nga xaar ko la bëggoon wax. noonu la bëggoon docteur bi nee na nga xaar ko la moom. Eh, jàng na na wax li mu dégg rek mu ne ma docteur bi ne nga xaax ko may ma pour wàll nii taalib loolu la. waaw luy luy kàddu gu ñëw rek man nga saa isra. waaw ci laa bindi cib cib bi sol lu xat a gàtt mënta tax nga doon tubaab sa ñëw gi fii xamal ki tax. soo ko xamee nga xam li tax tëggam te te xam ni fii da fi bawoo yow doo fi sax so robb mbaa te pantalon di dox di niir yu ku naa la manqué lii gën a du nii mba dàll yooyu ku seen ni njol nga fekk yooyu yuqamtikoo la tax di njol sukkal nu yoo waaw jërëjëf jërëjëf dëgg yow nag mooy check down dafa mel ne kompuloo yoom te takku liggéey te du leen bépp foo ndax jaaxal moom du wéy i love talking about it dogu mu takana tulungala ni love gën a adduna bi dañ koy sóor man teel naa jóg ci fajar maanaam tegu ci yoonu góor ba may door yombul woon dañ wax ne duma ci dama xeex ba yegg si taxaw fële ñu may seet naaj bu tàng jër may porte à di distribuer di jaay di di ñële di manqué res loo fi gis plat mi sotti foog mu metti soog a neex ta di direct marketing seen yoonu ba kenn mënu ko tudd suñu wareef la ñuy def xaaruñu dara ci nguuru réew formé ndaw ñi jox leen xëy xëy. am nañu mbégte ak contentement bu mag euh, di nuyu sama benn xarit euh, muy monsieur Selou Diallo euh, directeur général bu agence de voyage expert groupe sama xarit la di ko ñaanal jàmm ak wér gu yaram di ñaanal tamit tout le personnel ñoom tamit waxtu bi foofu ca 4C dañuy seetaan émission Kouthia Show tout le personnel ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax ci surtout jigéen ñi fa nekk góor ñi fa nekk. di liggéey ci njiitalu Cellou Diallo directeur général bu agence de voyage expert groupe yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye jiite bi amicale des ressortissants catholiques de la paroisse Saint-Augustin de Babac ñoom nag samedi le 19 bii Kouthia dafa bokk ci parrain yi au collège Saint-Pierre de Grand Dakar ki koy tëgg nag di sama xarit di Marcel Diabandong Euh, moo koy amal foofu nag le 19 ci euh, amical des ressortissants catholiques de la paroisse Saint-Augustin de Babac ñu ngi ciy nuyu ñëpp parrain bi ñu kenn ñëpp yàlla defal jàmm ba samedi le 19 incha allah di am mbégte contentement ci euh, di gërëm bu baax maire Ousmane ba Diallo bu xalif bu Grand Yoff di maamu Aïcha Cissé bu Mora Cissé ñu ngi koy nuyu. waaye di am mbégte contentement ci suñu góor gi yi nga xam ne mooy alaaji Seydou Ba depuis Guy Fatma may nga taaliba Thierno Bokar Alpha Ba ca war a fondé ñuy ziar Thierno Bokar Alpha Ba yi nga xam ne nag moo wootee barke démb gàmm gu mag ci këram samedi ak dimanche bi nuyu nañ Boubacar Samb responsable acquisition TFM nekk fii ci Télé Futurs Médias di sama boy nekk foofu ci HLM ñu ngi koy ñaanal waa Touba comme yëpp samay xarit nañ ci avenue Ngalande Diouf fan su Kouthia nañu boo heure bi jotee foofu ca place ba ñëppay seetaan borom téléphone yi na ko yàlla defal jàmm ak mboolem employé bu nekk foofu ca Touba Kom Khady Sène Mara Faye alias Mohamed di nuyu tamit Mara alias Mohamed Mara di nuyu tamit Awa Faye Pape fay Modou Faye Assou fay et toute la famille fay depuis Amo 6 maa ngi leen di nuyu waaye di beral nuyoo Idrissa Baxa Yoxo et toute sa famille ñoom Alioune Diop Kalidou maître tailleur <coughs> ñoom Cheikh Abdoulaye ñas ba ñoom Baba euh, Babacar Niass Euh, Cheikh Aïssatou Sarr ñoom Nabou Ban euh, Banna euh, ñoom Fatou Soxna ak mama ñoom mama ñoom Papis ñoom Aada ñoom Serigne Meye ak Marème Daba ñu leen di nuyu Ami Soumaré chéri Cheikh Paya Gueye ñu ngi ko nuyu borom la classe Islim chéri Assou Thiam nuyu nañ ko Baye Cissé borom Cisco technologie suñu xarit la fan su Kouthia depuis Kaolack di nuyu tamit Leena saw borom lee Euh, Lifa kooku nag dama koy nuyu bu baax Leena Saw couture nekk ca Malika ñu koy ñaanal fan bu gën a góor gu yaram xale bu am jom la moom Leena Saw euh, ku bëgg ay waajuram la papam di chef de quartier bu Malika plage ñu koy nuyu ak Pa Libas Saw euh, suñu yaay Adja Fatou Diallo Badiane Aïcha depuis Malika plage de la part de Horatio et Koutia Alaaji Tafsir Moussa Sakho ñu ngi koy Moussa Gassama ñu ngi koy nuyu Kër Madaaw région de Thiès ñu ngi koy nuyu waaye tamit di beral nuyoo Leena lee Lifa couture nekk ca Malika yàlla na ko yàlla defal jàmm tey aar ko madame Ndiaye Rakki Euh, borom jeu de dame ca Anmaris Armarinas ñu ngi koy nuy ak sama jigéen sama xarit ñu naan ko madame Kayre Khady borom euh, dame Pompadour ca Anmaris ak Lusxana Kim ñu ngi koy nuy tamit ca Wakam nekk ca booru Jean Mermoz suñu xarit la ñu nuyu tamit képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel ci ñun mbokk yi defe naa nag euh, dañuy nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy way nii di euh, di xës dadi suñu xarit la ñoom nag ñu ngi préparer seen show de l'entrepreneur euh, ñu ngi koy amal samedi le 12 foofu ca Sorano ñoom tamit yal yàlla def ñu am jàmm ndax xës dadi euh, nit am am ku am ku am cofe la ci doomu aadama yëpp di nit ku baax xam naa samedi le 12 dina neex ndax boo yi nga xam ne ñoom ñooy combe ak ma ñukk dinañ fa nekk ak waa daara ji famille ñoom danañ fa teew xës dadi bu wootee nag Sénégal ñëpp a teew ndax nit ku baax la mbokk yi oration dañu dem seeti Madaar Noura Jetol mera mos dolli ak soft skin bi nga xam ne jigéen ñi ku ñuul da lay gën a leeral ku xees da lay gën a leeral fantôme ak 6 plus kër aram jàppale ñoo seen émission Kouthia Show tonton Mag papa Samba Thiam ñoom ñaar ñoo lëkkaloo les deux jumeaux de la réalisation ci teewaayu Yaawa Gervais benn jëmm ñaari kamera ak top leuse ci lumière mbokk ñi seeti Madické Niang mu fas yéene tontu li nga xam ne moom mooy waxu Macky Sall boobu ndax dëkk bi raamul day naaw te ci wax la ci wa waxu waxu la jëm ci ñaaw ñu seeti di dëkke ñaa ndar-ndar bu ma baa ngi noonu jàkkaarloog ay militants pour leeral leen xalaatam ci dëkk bi ndax day raam war day naaw. jërëjëf borom baat boobu moom la xanaa xanaa daa am ku leen rax tey ah baat boobu di noro xorom ndolle kay moom mën naa ñàkk ndax Adja ku ñuy woyal bi borom këram dafa war neex waaw waaw jërëjëf maa ngi leen di maa ngi leen di gërëm di leen sant bu dul sax militant damay wax rek sama xalaat ci réew mi. waaye nag buñ ne réew maa ngi waaxu bay naaw kon xanaa dañoo nekkul Sénégal beneen réew nañu nekk ñun ñi nga xam ne ay ministre ñu woon ci gouvernement Macky Sall te tey yàlla def suñu ndomba tànk yooyu amatuñu ko ña doon ñëw dañu seet ñooy ñëw ba tey te ñooñu tey dañu gën a yokk kon nga war a xam ne li fi newoon ba ñu demee ba ne loolu baaxul jële ko fi bu fekkoon ne nit ñi doon ñëw suñu kër dañuy fëgg dañoo wàññeeku ñu ne ah réew maa ngi dox ndax ñu doon ñëw di ñaan dimbal kenn ñëwatul waaye léegi xoolal réew mi réew maa ngi dox nii ñu ne réew maa ngi dox ci naaw la jëm kon nag est-ce que man nekkuma Gambie war a nekkuma beneen dëkk man dama yaakaar na nekkuma Sénégal de ndax bu fekkee ne réew mi nga xam ne moom la ñu nekk moom la ñu wax ne réew maa ngi dox réew maa ngi naaw te ñun ba tey les problèmes yi amoon ci réew mi ñooy am ba tey nit ñaa ngi ñoo ba tey di ñaan ndimbal nit ñaa ngi ñoo di sàkku ndimbal. wax dëgg yàlla kon damay laaj ndax ñun na ñu nekk wala beneen dëkk nañu nekk xanaa du Sénégal waa fan laa nekk Sénégal Dakar dëkk bi am fukk ñaar fukk ak ñeenti fii ci Sénégal laa nekk déedéet damaa juum man laa wax man laa man damaa juum man ndax bu fekkee ne la président Macky danaan réew maa ngi dox ci waxtu wu mu nekk te ci naaw la jëm kon Macky demul de Macky duggul ci dëkk bi kon Macky seetul li nga xam ne moom la réew mi di doxee dama ragal nag li dal Abdou Diouf dal ko ndax Abdou Diouf dem na ba benn instant journaliste yi laaj ko naan ndax yëg nga ne sa sa café dañ koy def ci mbuus mu ne yëgu ko ñu laaj ko ndax sunguf meew yëg nga ne dañ koy def ci mbuus mu ne yëgu ko araam te boobu sunguf meew baa ngi toj dëkk bi ak sunguf ma nas café bi waaye nag Macky Sall xanaa yëgul na jaaykatu cere yi fonde yi ci koñ bi yëgu ko est-ce que xam nga ne jaay fonde ak cere ñu ngi ko doon seen ci baale bi ndax ñooñu dañuy jundoo li ñu yor sagoog li ñu yor waaye léegi law na ba almadi bi boo génnee ci tournal kalandoo yi nga xam na fa laa dëkk jaaykatu cere baa ngi fi mer ñi maa ñi maa ngi fii toog di jaay cere boo weesoo di dem méridien fii avancé jaaykatu beñe yi xale yi teefe mi fa ñuy añee suba nañuy lekkee beñe ñoom ñëpp fa nañuy dem di lekki beñe waa nag bu beñe bi jógee géejawaay romb ko romb pikin dem ba almadi kon réew maa ngi dox ci ay beñ ak fond rek suppu kaja <laughs> waaye yow waaye waaye yee leen Macky day nelaw Macky day nelaw yow yee leen ko parce que yëgul yëgul li xew te gis nga période màggal bu ñëwee ñun dañuy def te yàlla rek tax man damay gaare ñaari kaar ci kër gi jël ay addiya yoo xam ne def ko ci enveloppe xale yi nga xam ne ñoo dëkk te te te bëgg dem ñu yëkkati da leen ko jox loolu day yokk da wàññeekul de ndax ñooñu tey bu ñu amoon liggéey du ñu ñëw dañ naan ki lay jox te di la may rus ngaa taxaw ëllëg di ko ñaan kon réew mi doxul Macky Sall nag dafa jaawale ndax xawma ban dëkk la nekk war a man maa xamul ban dëkk la ñu nekk ah Adja Khoudia ngi nii mu ne naam ñu ne ko may ñu ceeb Adja Khoudia mu ne naam ñu ne ko ndax desaloo cere ah café Touba ngi ni lëmb dëkk bi Touba la yemoon wàcc Mbàkke jóge Mbàkke dugg na biir Dakar café Touba ci banlieue bi nga ko doon gis waaye da ngay dem ba buntu hôpital daan teg booru présidence damay bañ a wax sax ñu toj ma garde rouge sax dañuy naan café Touba léegi ndax njëg bu yomb te yéen koo bañ a wax baax na yomb na waaye tamit xam nga bu njëkk ba da nga ko doon rusa naan ci ay mbedd parce que dañ doon yaakaar ne xeebu la te du xeebu barke nga ci lu neexal ci waaye nag buñ demee ba réew mi ñëpp di ko naan c'est parce que dañoo yorul kafe bi fort bi nga xam ne ñoom moom na ñuy sago café Touba nag cere yooyu yu bëri dañ ko doon gis nit ñi nga xam ne ñoo ñoo doon góorgóorlu pour xëy ndekki daan ko naan ndax am na lu ci nekk boo mu musaan naan café tubaa doo xiif doo mer boo musaan lekk cere bëccëg doo xiif doo mer waaye léegi sawarma yaa ngi tëj hamburger yaa ngi tëj léegi ay sawarma cere fa am ay fonde nit ñaa ngi ibbi ay restaurant mburaake mbur ak soos sandwich buuj fañ ko mës a gis buuj buuj menn bu ñuy dem ba di ko buut buut bi génn ci géej waaw def benn sortie ne réew mi da ko fekkoon muy raam léew maa ngi dox te ci naaw la jëm waaw te yow ni ñu déggee nga waxee ko dafa mel ne naaw boobu sax ñun xalaatatuñ ko xalaatatuñu dox xalaatatuñu raam mais réew mi daa mel ne kon day bërëngu parce que ni nga waxee nii bërëngu la nga nuroon monsieur le monsieur le journaliste dama lay tontu man ñetti xeetu sandwich laa gisoon ci réew mi bi Ablaye Wade nekkee sawarma mburu ak foie yàpp ak waaye léegi keccax gii dañ koy sandis soosu keccax soosu buuj buuj na buuj buuj waaw buuj bu ñu dem bay jël buuj di ko sandis soosu buuj soosu keccax yéet gii nga xam ne yéet bi nga xam ne nit ñi ci boppam sax am nañu ko doon lekk léegi dañ koy roti di ko def suppu yeet kuy dem bay léegi suppu yeet nag foo yuutee mu war la jaaxal kenn doxatul day bërëngu doxatul may leen ma ñëw doxul ngeen di wax waaye doxatul moom dafa ñaaw doxul waa kay day baragu réew mi pusul waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw adaa xujja waaw waa kay waa kay waaw réew mi doxul waaw waaye réew mi doxul waaye li doxul gërëm nañu réalisation bi ki ci nekkoon nag di Papa Samba Thiam de retour avec force ñu ngi koy nuyu tamit bu baax di ko gërëm di ko sant tamit euh, euh, depuis mu reprendre ko jëm nañu taxawaay bi mu taxaw nag euh, pour mën a jëmale émission bi kanam ba nga ciy xalaat ci li nga xam ne nag moom mooy morceau intro bi nga xam ne mooy introduire Kouthia Show loolu yëpp mu ngi ciy liggéey jëmale kanam ñu ngi koy ñaanal retour bu ànd ak dal bàyyi Yacine yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram waaye di nuyu waa Mara Noura bi nga xam ne ñoo indil soft skin Euh, Kër Aram jàppale ci machine yi ak Techno plus 6 ak 6 euh, plus ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk yi ni ñu tàmbale xibaar bi te commencement bi xam naa ñoo xam ne ñu ngi ciy soog a yem dañuy tàggoo gërëm tamit euh, nga xam ne génn na ko sur le plan international waaye bu ñu ci jógee nag ñun bopp ci moom xalaat bu rafet bi nga xam ne moom la amoon ci Hillary Clinton bi ak Donald Trump nag ñu fàttale leen nag idée bi idée Youssou Ndour la ñun dañu ko jëfee rek waaye mu nekk jëf boo xam ne lam ca xalaatoon moom la yàlla def mu am ba CNN benn télévision bu mag boo xam ne ma nga ca États-Unis daal di cay def reportage bu am solo waaye ñuy remercier tamit Astou Mbène Thioub ak Adia Talla yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci rédaction bi bi nga xam ne dépêche bi daanu na ñoom ñoo ko jël rek daal di koy génnee ci samedi bi ci journal 13 bi loolu nag dañ koy lu bu baax boo nekkee ci kër. nga am ndam yaakaar naa ne li ci war rek mooy fexe ba ña nga xam ne nag ñooy nekk foofu ñu jéem koo vulgariser jéem koo dooleel parce que loolu euh, nekk na loo xam ne mooy tax li nga xam ne nag moom mooy euh, effort bi nit ki di def nga mun ko wax waa góor waa góor nag boo gis rek am na lu war a nekk ci ginnaaw kon ñun dañuy féliciter ñun Youssou Ndour ndax moo amoon idée bi moo amoon projet bi ba tey li mu ci séntu woon tey gis nañ ko ndax euh, bu ñëpp seen xel dem ci États-Unis 54 états te fi nga xam ne fa la Obama di waxee Hillary Clinton di fa waxee Reagan dafa doon waxee télévision boobu moo mujj génne def reportage bu mag ne liggéey bi nga xam ne ne Kouthia Show def na ko ci euh, Donald Trump ak euh, li nga xam ne mooy Hillary Clinton ñoom nee nañu mosuñu gis lu mel noonu ci loo xam ne amul masque amul dara te dunduñu fa ba mën a bàyyi xel ci li nga xam ne mooy actualité gàcce ngaalaama li ngeen ko dégg nañ ñoo ko en anglais ci biir ñu ci sant tamit ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci surtout ñi nga xam ne ñu nekk ci équipe bu Kouthia Show Horatio ñoom ñanga Thiaba Marème mention spéciale à Marème fay bi nga xam ne moom moo doon def Hillary Clinton bi ak jigéen ñi nga xam ne cameraman yeeg ñi ci jàpp ñëpp ñëpp bu ñu limee dañuy juum mais ñëpp ñu ngi leen ciy boole ci ndam boobu nga xam ne TFM moo ko am parce que waxuñu Kouthia Show rek dañ na ca télé bu mu nekk mooy teefem TFM su xaluñu ko ci am na ci euh, gis-gis moo tax ñuy gërëm ñëpp di leen sant ñu bàyyi leen ak euh, boobu di gërëm ñëpp di leen jox daje incha allah dox daje nag incha allah du yàgg ndax ni ko américain bi waxee équipe yëpp dinañ dem foofu ci États-Unis après élection résultat bu génnee danañ dem ca chaîne bi nga xam ne fa ñu defee loolu ñu invité ñu fa ñu daal di wane li nga xam ne mën nañu def ak ànd ak équipe Show yëpp yàlla may ñuy dem ak jàmm ñëw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm kilifa diine yi nga xam ne ñëpp ñaanal ñoo pour ñu am ndam ndam boobu nag ñu koy dund di ko gis na yokk jëm ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah If you've had the chance to visit Harlem in the past decade, you may have noticed that a lot of West Africans now live in the neighborhood, especially Senegalese. The several blocks around 116th Street, in fact, are called Little Senegal. That's one reason why the U.S. election is being followed very closely back in Senegal, and there's a lot of concern there about all the anti immigrant talk from Donald Trump. But at least some Senegalese are having a good laugh about it, too. Hi. Hi. My name is Donald Trump. Yeah. Yes. Future President America. That's Kuchia, a comedian in Dakar. He goes by just one name, but ask most Senegalese, and they'll know exactly who he is. In fact, his popular TV show is simply called Kuchia Show. As you just heard, Kuchia has been impersonating Trump. He found a wig at a women's hair salon in Dakar and adjusted it to create Trump's massive cowlick. and his face makeup is white, even though that's not the color most satirists have settled on as Trump's primary skin tone. Senegalese audiences in Dakar and in New York love it. That's what New York based Senegalese journalist Dam Babu told me. I can tell you that is one of the most watched shows in the community here, including uh, even compared the U.S. television. They watch Kucha show more than the shows from the U.S. Here in the U.S., you can watch Kucha Here's a bit from one recent episode. <laughs> bëggoon nga jàppale ma Clinton bopp bi ëlbatiku mu stuff. Hillary Clinton. yes feebar guddi bëccëg man mu nekk président. loolu la bëgg. Kuchia's Trump travels to a village in Africa to meet a shaman. Obama. Ah, Obama. Oh, suma xel dal na. ok. The comedian walked me through the sketch, which is in Wolof, the main language of Senegal. Donald Trump, un uh, uh, dernier moment, euh, que peut-être seuls les euh, marabouts d'Afrique the conceit here is that Trump thinks he should consult an African shaman because only a shaman, Trump has heard, would give him the power to be elected. So he goes to Africa and meets a wild eyed master of black magic who tells him about all the leaders he's empowered with his spells Barack Obama, Thabo of South Africa, Nicolas Sarkozy of France. Sarkozy. Oh, Sarkozy, France. But as it turns out, Trump is in the same village where a different shaman is giving Hillary Clinton a magic potion that would give her special powers. Mm-hmm. Hillary. Hillary, get up! a very marabu. So, what's the appeal for a Senegalese comedian of diving in so deep into the U.S. election? It has everything to do with Kuchia's boss, the owner of the TV station where he works, Youssou Ndour. Parce que le président directeur général euh, du groupe là où je travaille, Youssou Ndour, a, a eu l'idée the Grammy Award winning singer, parlayed some of his success into broadcast media in Senegal. He owns and operates one of the biggest networks there, TFM, Telefuture Media. And Youssou N'Dour, Kucha told me, knew that with our election, a lot of Senegalese eyes are on the United States. And Dewar wanted his country people to be aware of the things Donald Trump has been saying, so he asked Kuchya to come up with his act. Euh, euh, Donald Trump parlait de l'immigration. Kuchya's blonde euh, wig helps, but really he doesn't look a thing like Donald Trump. Still, Kuchya Show has launched a discussion among Senegalese expats in the U.S. about Trump, a candidate they generally don't like. It's actually a bitter relationship that goes back to the 1980s, when Senegalese peddlers tried hawking their wares in front of Trump Tower on Fifth Avenue in New York. Trump alleged at the time that the Senegalese were part of a scam, trafficking in stolen merchandise, and that most of them, according to Trump, worked for, a small band of extremely wealthy people who probably have big homes in New Jersey and Connecticut. The peddlers all denied that, but now the rivalry is alive again. And journalist Dam Babu in New York says for many Senegalese here, Kucha Show is not just entertainment. In the community, you have still a large number of people who are not really fluent in English. So I'm not sure they get it when Donald Trump says it. But when uh, uh, you watch the Daily Show. It's like news to them too. The news of the world